la situation s'en est fortement émue et a demandé au ministère du Transport, mais aussi au ministre du Développement communautaire et au ministre de la Santé de faire du déplacement à, la Catherine de ce à nous pour apporter le soutien aux, aux victimes. il n'y a pas de mot plus important que dur, donc de mot plus grave que dur, et c'est un accident très grave, très dur. Et je crois que euh, c'est aussi la volonté au-delà de la volonté divine, il y a des mesures à prendre et, le gouvernement qui sera là les prendra. que c'est une délégation oh, C'est une qui frappe le pays, 40 morts quand même. C'est énorme, une seule ville de perdu day jëngal seet si askan bi ba ci keneen jàpp na loolu naqar bu rëy bu rëy fu mu mënta amoon ci Sénégal naqar a maanaam bu amee fii ci Kaffrine te yàlla jox na bi euh, waaye lii yëpp euh, boo constaté tey ñeent fukki nit perte nañ seen bakkan sur place ñeneen ñaa ngi ci dispensaire hôpital régional ak dispensaire yu nekk ci biir Kaffrine euh, waaye ndogal yàlla itam ñetti ministre wax na leen nañ tegu ci yoon ñëw jàppale ñu euh, ci la prise bi ci ci hôpitaux yi mais aussi naka la ñuy def euh, jël yi xool li fi am bu baax bu buñ ko xoolee ba pare ñu xool mesure ñu war a jël parce que bakkan for na for ba nga xam ne amul kenn ku war a waaye ma rafetlu li ma fi fekk nga xam ne tey ñu ngi ba ñi nga xam ne ñoo accidenté ñu defal leen jàppale leen mais aussi corps yi nga xam ne ñu ngi ci hôpital bi ñu mën leen identifier xam seen i mbokk